ne ma daal man sa doomi ndey laa te sa gémmiñ xeeñ na moom euh, sa doomi ndey rek la ko war a wax sama xalaat bii ma am ci réew mi nag amul lenn lu ma tënk luy tee a wax ko lenn lu ma tënk luy tee wax sama xalaat amut gàcce la ci réew moo xam ne public république la ba noppi ku wax dëgg maa nga war a mbaa nga wax li nga war a wax ñu ñëw ne la ah moytul daañu la tëj maanaam li li nit ki di wax ba noppi ne bu ma ko waxee xam naa ne danañ ma saaga mm-hmm. léegi lim li muy wax loola lañ war a jàngat lu mu doon xam nga problème yi lan la. mooy askan wii. di askanu Sénégal dañuy askan wu sonn dañuy askan wu bari ay jafe-jafe te aajowoo ku leen taxaw aajowoo ku leen dimbale. Abdou Khadre Niang mu présenté ñu mbokkam bi nga xam ni moom moo feebar waaye mu wax ñu itam fépp fi nga xam ne nii jaar na fi ci feebar bi lépp lu fi def ba xëy na suñu borom indi li nga xam ne ni moom mooy xëy na télé bu mu bëgg ko gaaral mbokk yi ngir lépp luñ si am ñu mën ko si def. kii di njoogu ña nag suñu waajur la ndax ah, wax dëgg yàlla ñin la ko yàlla dénk moo tax lépp luñ ci man rek def nañ ko ba yàlla dogal fi suñu doole yem ndax mbir mi dañ ci am ay jéego yoo xam ne dox nañ ko si ndax moom mii rek njëkk nañoo jaay benn terrain boo xam ne six cent mille lañ ko jaayee ñu def ko si loolu taxut ñu amaat benn terrain boo xam ne jaay nañ ko deux millions ñu defaat ko si ba loolu tamit loolu taxut ñi gis euh, tan ba léegi. waaw li ñuy docteur yi wax nag feebar bi li ñu docteur yi wax mooy ne def nañ lu mat euh, ñetti rajo ak ñaari écho li ñuy docteur yi wax nga xam ne si lañ mën a sukkandiku bi si njëkk nee nañ ñi siddi si yàqu ndigg bi moo képp siddit bi loolu la ñuy docteur yi wax beneen bi nee nañ ñi yàqu mbagg bi dafa jeex. dafa am problème jeex moo tax loxo ndeyjoor mënu ci dara. léegi nag bañ toogee waxtaan mu ne ma loolu mant su ngeen bëggee paa bi nekkaat daal il faut ñu opéré ko ci laa ne ko bon léegi danga may waxal somme opération bi mu tolloog ci deux millions quatre cent quarante cinq mille mu ngi nii mooy feuille bi ñu yor nii moo mooy somme bi mu tolloog deux millions quatre cent quarante cinq mille waaw def nañ ci xaalis bu bëree bëri bëri ndax liñ ci def rek fi mu toll nii ëpp na 3 millions ay 400 yooyu. mbokk jullit yi ñu ngi leen di ñaanaat une fois ñu dimbali mbokk mi nga xam ne moom mooy Ndiouga Niang ñu defal ko opération ndax opération bi kat moom mooy tax xëy na mu delluwaat ci wérgu yaramam moom nag la mu mënoon yëpp def na ko mu ngi koy wax léegi dépensé nañ si lu mat lu ëpp 3 millions. léegi jamono ji opération bi mu ngi toll devis estimatif bi mu ngi toll si deux millions quatre cent quarante cinq mille francs kon ñu ngi leen koy gaaral mbokk yi di leen ñaanal suñu borom defal leen taw tawfeex kon ñu ngi leen di jox numéro bi bi nga xam ne am na Wave am na Orange Money am na lépp li nga xam ni moom mooy plateforme envoyé muy 77 544 38 80 77 544 38. mais très yi nga xam ne yéen a topp ci biir Fafa TV fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm waaye itam ñu ngi amaan mbégte bu baax a baax jàkkaarloowaat ak yéen war indi indil suñu émission bi nga xam ni moom mooy question d'actualité. comme ni ngeen ko xamee question d'actualité dafa nekk émission boo xam ne dafay traiter lépp li nga xam ne nii mooy actualité bi nga xam ne mu ngi xew ci biir réew mi que ce soit politique économique et sociale tey nag euh, ñu jóge Dakar jaar Kaolack ñëw ba fii Touba ñëw fekk siwaat ki nga xam ne moom mooy al imam Serigne Mor mbay ñu war ko tàllal suñu micro mu defal ñu ay jàngat ci xaw-xaw yi nga xam ni moom moo am ci réew mi xam ngeen ne lu bari xew na si réew mi jamono bii nii ba li si mujj rek mooy vendredi bi passé meeting bi nga xam ni li mooy waa PASTEF bëggoon ko organiser fii si Mbàkke waaye malheureusement préfet bi mujj ko autorisé waaye terewul mel na ni gars yi def nañ meeting walla sax buñ ko mënee wax gars yi en tout cas def nañ manifestation ba xëy na mu jur amaana xëy na ay jàppante si diggante euh, police takk der yi ak li nga xam ne ni moom mooy population bi xam naa euh, émission bi daanaka li ci ëpp xëy na ci loolu lañ si defee ay jàngat waaye xam naa balaa ñuy dugg rek incha allah dañuy tàllal ki nga xam ne moom mooy al imaam Serigne Mor Mbaye ñu jox ko mu nuyoo ak téléspectateurs yi ñuy soog a dugg ci waxtaan wi imam bismillah aouzu billah min alsheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa man sanna bi sunnatihim ila yawmi ddin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu ahmadou bamba ñu ngi lay nuyu lu bari te di la ziyaara di nuyu ak a ziyaara ak di jaajëfal téléspectateur bu faafa TV di leen ñaanal yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm waaye it ñu di jaajëfal bu baax tax ñëw yàlla na yàlla fay leen yiw jéego yi ñëw yi ak yu dellu yi yëpp yàlla ko yàlla def mu nekk tiyaabo nangul leen ko bindal leen ko ci seen téere jëf tam fay leen li nga xam ne diggee na ko ci pay ci képp koo xam ne wooteel nga ko ci diineem ci ay jaamam waaye it euh, bala ñuy daaneel ñu ñaanal yàlla suñ borom mu beesal yërmandeem ci al imam Alioune Badara Ndao mi nga xam ne moonu boole ak kóllëre yàlla na yàlla yërëm imaam sagub diine la woon sagu aw askanam la woon dëgg-dëgg fii réew mi toll ci jaxasoo kenn nattablewut ne bu fekkoon ne mi ngi fi tey di dund kenn nattablewut ne dees na ci dégg kàddoom lu baree bari ndax doxinu aw su ab société daf ko mos a soxla nag jekk loola sax li ciy firne mooy jamono yëpp da ngay gis bu réew mi jaxasoo ñu dem jëli ay waxam di ko dëppale a xew-xewi jamono yi kon ñu ngi delluwaat ginnaaw di ko wéttali ko di dellusiwaat dellusiwaat aw njàngalinam ci aw askanam loolu li muy tegtale rek mooy ku yàgg taxaw ci soxla yi aw askanam la yàlla yàlla yërëm imaam di Badara Ndaw te yéega ko ca màqaama yi gën a kawe dëkkal ko ca aljana yi gën a kawe nangul ko mboolem jëf yu baax yi nga xam ne moom la doon jëf ak coono yi nga xam ne doon na ko sonn ngir aw askanam imaam Alioune Badara Ndao kenn nattable wut ne lu ko daj lu ko dal ca ay coono yi àdduna lum daj ca ay metit ak i jafe-jafe bëgg sauver aw xeetam rek moo ko ko yóbbewoon maanaam yëg lu aw xeetam yëgut xam lu aw xeetam xamut gis lu aw xeetam gisul woon tax mu doon alerte ba li ko dal ci ay coono yi àdduna yëpp bëgg bëggoon a yee aw xeetam rek moo ko dal moo tax mu dal ko kon nag yàlla na yàlla fay ko jëfam joojee li mu yéene woon te mataliwu ko ci ay jëf yëpp yàlla ko yàlla mottali euh, ñun ñi desandi ci ginnaawam nekk ci mbooram da xeeñtu ay doxinam it yàlla na yàlla defal nu tawféex doole nu kaaraange ba suñu yéene mat ci lislaam suñu yéen mat ci moom kaddu yi ma mujj ñaanal bi ma ko ñaanalee ak bi muy génn àdduna matul ñaari semaine ma ama sax xam naa sa yéene ci lislaam xam naa sa yéene ci diine ji ak askan wi yàlla na la yàlla taxaw te dimbale la ba nga mottali sa yéene ñaan googu la ma imaam mujj a ñaanal te bi ma koy ñaanal ak bi mu génnee àdduna deful quinze jours yàlla yàlla yërëm ko amiin jazaakumullahu al imaam ci ubbee bu rafet boobu waaye itam ci sede yu rafet yi nga xam ne moom nga seede ki nga xam ne mooy al imam Alioune Badara Ndao nga xam ne duñ ko fàtte mukk ci suñuy ñaan kon euh, dañuy delluwaat di la gërëmaat bu baax a baax al imam Serigne Mor Mbaye ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu ko tey nag ñu ñëw fii ci sa bërëb sa kër waaye itam ci sa daara mm-hmm. nga dalal ñu tey warla jox micro nga defal ñu ay analyse ci xew-xew yi nga xam ne moom moo fi xew mm-hmm. ñu ngi koy junj léegi bari na waaye mm-hmm. al imam xam naa balaa ñuy dikk ci loolu sax mm-hmm. xëy na ci jamono yi mën nañ ko wax jamono yi ci ginnaaw yu weesu maanaam ay association ay njiit ak ay imam ay kilifa yoo xam ne gis nañ ni kat réew mi li nga xam ne moom mooy tension sociopolitique yi bi xaw na yëngatu te ñu ngi ci mois de février bientôt mois de mars ngir xëy na bañ nee nañ li nga xam ne moom moo xewoon ci événement mars 2021 xewaat hmm. ba tax na ñoom ñu yëg seen responsabilité yow mii nga bokk ci mbooloo moomu ñu ne ñun kat dinañ wër dem seeti kilifa diine yi hmm. ngir gaaral leen lii maanaam ngir ñoom ñu jël buñ ko mënee wax maanaam seen kàddu hmm. ngir mën ko eggee askan wi moo xam askan wi la waaye itam ñi nekk ci nguur gi ngir kat xëy na pour artu alerte yow nga bokkoon ci délégation boobu xam naa imaam liñ la bëggoon li ñuy laaj rek mooy ndaj loolu noonu ngeen initiative boobu noonu ngeen jël. Hmm. ndax mën nga ko ñu ko gën a leeral. Hmm. ak lan moo doon sabab la. ok jërëjëf. Hmm. initiative bi day weesuwul doon ay responsable yu nekk ci biirum réew te réew mi nekk ci crise euh, léeg-léeg nag da ko wax yenn ci homme politique di wax ne dara xewut nekkuñ ci benn crise réew mi yëpp ci jàmm waaye bu ñu nee crise tegtalewul jël ay yet di dóorante donte ne yëgguñ ca nag te mën nañ caa jëm parce que c'est-à-dire lii bàyyi ko ci dënn yi tey ñëw ci làmmiñ yi nga xam ne ay agression verbale la bu dee ñenn ci nguur gi di ko jëmale ci seenu askan ñenn ci askan wi di ko jëmale ci seen état ñenn ci militant yi féete pouvoir ame ay agression verbal di ko jëme ci ñi opposé opposition yi am ay agression verbale di ko jëmee ci militant yi ñi nekk ci pouvoir bi yooyu di génn ci làmmiñ ci ay wax yu ñaaw ak i sosalante yàqante der ay yibalante mhm. tuumaalante xawente ay sutura ci xol yi la bàyyi ko door a ñëw ci làmmiñ yi làmmiñ yi yàbbi ko loolu di bàyyi ko ci xel yi ci xol yi nag di ñëw ci làmmiñ yi bis mën naa ñëw duuti yem ci làmmiñ mais agression physique lay doon bu baba dañu weesu agression verbale mais ci physique lañ jëm ndax bu fekkee ne état mi ngi toog toujours muy def ay déclaration di wax ne yokk nañ seen effectif police yokk nañ effectif gendarmerie ñu ngi yokk seeni ngànnaay bu fekkoon ne loola dañ koy wax parce que dañoo yëg ne seen réew dafa am insécurité bu fi nekk ñu bëgg sécuriser askan wi parce que sécuriser askan wi nag état la war parce que ñun askan wi état lañ jox suñu moyen moom lañ jox police moom lañ jox gendarmerie moom lañ jox armée nationale moom lañ jox suñu budget kon kooku suñuy moyen ñun moom lañ ko jox kon kooku mooñu moo ñu war a sécuriser waaye ànd ak li ñuy def ay déclaration di def ay sorties di wax ne yokk nañu effectif police yokk nañu effectif gendarmerie yokk nañu euh, euh, armée bi ñu ngi yëg ne insécurité bi mi ngi gën di régner ci biir réew bi parce que da ngay liggéey guddee wàcc nit dogaale nangu sa alal ci digg mbedd nga wàcc yóbbu sa alal ci sa biir kër nit fëgg la guddi nga lànk nangoo ko bi mu toj sa bunt mu dajj sa bunt fekk la ci biir da ngay amee sa gétt xar mbaa sa gétt nag di yar ngir yaxantu guddi jot ay oto wàcc ci sa ci ci sa bunt kër ramasser sa gétt yóbbu te kenn du wax parce que bala ñu koy def dañuy ñëw armé kon insécurité bi ci réew mi kenn nattabliwu ko kon bu ñu nee état mi ngi yokk effectif police ak moom yokk ko pour sécuriser aw askanam waaye daf koy yokk ngir waaj a jàmmarloo ko aw askanam parce que ñoom toujours dañuy faral di wax ne li fi amoon duut fi amati. ñoom état bi loolu ñu wax askan wi di wax ne la ngeen defoon bu ngeen ko defaatee lu raw la amoon dana amaat mu mel ni nag am réew bu tollee foofu aw askan wuy tëkk ci biir réew ma di ab responsable am nga responsabilité lépp loo man ci dox ko ci jàmm nga def ko ndax fi mu ne toujours damay faral di wax danaa koy faral di wax ci xutba yu lu bari ñaar yi nga xam ne moom la ñu yàlla indee ci àdduna te muy liggéey ak jaamu yàlla moom lañu fi indee ñaar yooyu pour nit ki man ko il faut am jàmm suñ jotaay bii ñu bokk toog di waxtaane xew-xew yi xew ci biir réew mi bu jàmm amul woon ci biir réew mi duñ ko am duñ ko mën waxuma sax jóg doxi sa soxla maa nga xëy dem liggéey waaye jóg ñu nodd nga jóg génn sa kër dem fecc jàkka ji mhm. dellu siwaat ci sa biir kër sax bu jàmm amul nit mënu ko kon jàpp naa ne loolu jàmm rek jàmm la gën te it nag noonu am nañ ay xam-xam bu baax ci ne mhm. bari na réew yi jàmm xewoon ñuy foyee jàmm ji di foyee jàmm ji bu musiba gane si leen ñuy ngee ji musiba ja delluwaat mu tële dicc ndax na fitna li koy yee fayu ko li yee fitna fayu ko léegi nag bu fekkee ne ñun ay responsable lañ parce que ay imam lañ nekk ci ay manabir ci ay minbar ajjuma ju nekk ñuy wax ak askan wi bu réew tollee fii ñun waratuñu sumi suñu daal waratuñoo téye suñu làmmiñ li fi ak stabilité ji am ci biir réew loolu tax bi ñu gisee nag ne yëf yu wërta yam ci ñun ñuy toog ak euh, askan wi di waxtaan ak ñoom ci ay xutub ci ay xutba mbaa ñuy dem ci ay palato télévision wala ñuy def plateau yu mel nii doyut waaye ñun sunu kàddu am na fu mu waaye am na ñeneen ci biir réew mi ñoo xam ne ay kilifa lañ te seeni kàddu moo gën a kawe sunuy kàddu te muy kilifa diine yi mm-hmm. ñun intermédiaire lañ ci diggante askan wi ak kilifa diine yi parce que sunu kàddu mën naa yegg ci ñoom te ñoom seen kàddu mënut a ci ñoom mm-hmm. waaye ñoom it nag ña gën a ña gën a supérieur nekk ca kaw ñoom it kàddu mën na faa yegg te xëy na ñun kon suñu kàddu mënu faa yegg su ko defee kon ñun ñu gis ne mm-hmm. ñun ñi nga xam ne dañoo am ay mbooloo ñu topp suñu ginnaaw di julli waxtu wu nekk waxtu bu àjjuma jotee ñoo toog di ñu déglu bu jamono toolee fii war nañoo jóg dem seeti ñun suñuy kilifa nga xam ne ñooñu feeti kaw. kilifteef ñu waxtaan ak ñoom xamal leen fi réew mi toll ñu jël seeni responsabilité parce que réew mi damay faral di wax ne réew kilifteef la ndax li tax mu nekk réew kilifteef mooy damay gis askan wi toujours bu réew mi jaxasoo da ngay dégg nit ñi di wax ne ndax kilifa diine yi wax nañ lu tax waxaguñ. xalif seen lu ñuy xaar xanaa li xew yëguñu ko luñ bëgg mooy seeni kilifa sauver leen ci coono yi nga xam ne moom la ñuy dund yëg googu ñu yëg responsabilité boobu rek moo tax ñu ñu am yëg-yëgu sol suñu dal dem seeti kilifa yi waxtaan ceeg ñoom jot nañ cee dox ay jéego ànd kook euh, ay kilifa ci biir réew mi yoo xam ne dañoo jiite ay mboolu di ay imam ku mel ni Ahmad Dam Ndiaye bari miin nañ ko mi ngi jiite benn association boo xam ne ñu ngi koy wax rabitatul a'immati wa du'at fi bi Sénégal muy kuréel goo xam ne dafa dajale ay imam ak i prédicateur ci biir réew mi waaye ku mel ni eh, imam Abdullahi Lam nga xam ne moo jiite jamaatu Ibaadu Rahman ku mel ni imaam Ousmane Galadio Ka nga xam ne moo jiite xarakatu alfalaax ak yeneen imaam yoo xam ne ñu ngi jiite ay association ci biir réew mi ku mel ni euh, sëñ Babacar Mboup nga xam ne moo jiite collectif ant saabu jikko yi ñun ñi daal ñooy kuréel gi nga xam ne ñoo àndoon ngir jéem a gis kilifa diine yi waxtaan ak ñoom dem nañ Tiwaawoon dem nañ Njaasaan dem nañ Canaba Sekk mardi passé ñi ngi woon ci biir ndakaaru doon seet ay kilifa diine yoo xam ne it yëf yi daf leen concerné ñu dem doon ci waxtaan ak ñoom euh, kuñ ci demit li ñu lay gaaral mooy li xew ci réew mi rek tëkkonte bi nga xam ne askan waa ngi koy tëkkonte waajal gi ñuy waajal fitna dañu xam ne gënul ci askan wi gënul ci réew mi te li ñu li naqari askan wi lépp bu waxtaan amee mënees su koo saafara te fitna du yow état bi liñ bëgg bu waxtaan amee mënees na koo saafara te fitna du yow te jàpp nañ ne saafara ko ba mu saafara te fitna bañ a yow moo gën ñu yee fitna ba noppi wëlbati ko bëgg koo saafarawaat ndax léeg-léeg mën nañoo yee fitna ba mu yow ñu bëgg a saafara euh, pour résoudre benn problème mu créé waat yeneen problème su ko defee bu boobaa da nga bëgg waxtaan dafay fitna ji moom dana dana doy sëkk soxla su ko defee nag kon loolu mooy mooy gis-gis bi. mooy gis-gis bi loolaa taxoon ñu jógoon seeti kilifa diine am na ci jullit ñu bari xam ne it wax dëgg wane nañ ci seen i soutien i taxawaay ak seen i jàppale euh, ñii ci biir réew mi ñii ci biti réew. ngir wane na ñoom ñëpp jàmm ji daf leen a ñor ba képp koo yëg rek. taxawaay ba nga tax war war a taxawee taxawee ko. macha allah kon ñu ngi ciy jaajëfal ñëpp yi. macha allah jërëjëf al mu mel ni si sa biir wax léegi wax nga ko. Hmm. mooy maanaam yéen li leen yëkkati mooy ngeen jug seeti kilifa yooyu. Hmm. ngir kat maanaam ñu sauver seeni askan. waaye imaam li ñu jaaxal mooy léegi dafa mel ni. ndax xëy na moom lañ la moom lañ la bëgg laaj sax mooy ndax xëy na. jug dem seeti kilifa yooyu. ndax dina jur njëriñ. ndax li tax ñu wax ko. maanaam léegi kilifa yi dafa mel ni léegi ñoom seen bopp sax ñoom ñoo ragal a wax. wala sax léegi bu ñuy wax sax ñu jël si exemple ki nga xam ne moom mooy euh, Cheikh Mahi Niass. nga xam ne moom mooy moo jiite. mooy xalif général bu Medina Baye. Hmm. jamono yee ci ginnaaw kat moom kat mu ngi doon wax. Hmm. ba jékki-jékki wax rek ne ah maa ngi wax kat waaye xam xëy na danañ ma saagaati. Hmm. maanaam mu nekk wax joo xam ne wax ju xaw a doy waar la. maanaam imaam ndax léegi boog askan wi dañoo sentir ne. xëy na kilifa yi maanaam duñ leen jooyal seen métti. wala lan lan moo xew ndax loolu mënoon na jur njëriñ. Euh, ndax waxtaan wi mën na jur njariñ ah mën naa jur njariñ parce que toujours damay faral di wax ne ñun suñ kilifa diine yi nga xam ne ay xalif seen lañ dañ leen a war a jàppale. lu tax mooy ñun dëppoon nañu ak jamono ñun ñun dëppoo nañu ak jamono. ñu ngi xam liy xew ci télévision yi ñu ngi xam liy xew ci rajo yi ñu ngi xam liy xew ci internet bi mais magum juróom-ñett fukki at jàpp juróom-ñeent fukki at kooku talul yooyu talul télé talul rajo talul euh, internet mm-hmm. en général ñi ci bari dañuy wéyaale ak tawat yoo xam ne mayu leen lu bari ñu di ko ñu di ko mën a xam ci jamono léegi nag ñun ñi nga xam ne mm-hmm. seeni njaboot lañ te entouré leen nekk ci seen wet te tollook jamono ñun ñoo leen war a dimbalee lii xew ci jamono ñu di ko xam te di ko yegg kilifa yi ñu di ci jël seen responsabilité te ñu wan ginnaaw intérêt yi àdduna yi parce que nag li tax crise boobu am kilifa diine yi lu bari di xew te duñu koy yëg bay mën a jël seen responsabilité mooy ñu bari ci li leen wër sama classe gi addunaa leen bàyyi ci seen wet comme addunaa la fi bàyyi te c'est-à-dire ni réew mi jaxasoo ak ni mu demee yow moo la arrangé tax parce que mooy tax ngay dund su ko defee da ngay am intérêt ci sëriñ bi li xew mu bañ koo xam parce que yow lii mooy defar sa affaire il faut nag kon ñun ñi nga xam ne ñooy entouré kilifa yi ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla te bàyyi xel ak ëllëg te wan ginnaaw suñu intérêt adduna yi te dimbale sëriñ si ci li ñu war a euh, responsabilité yi ñu war a jël ñu di ko jël su ko defee nag ñun intermédiaire lañ suñu diggante askan wi maanaam diggante askan wi ak kilifa diine yi li ñu man mooy kilifa gu nekk ñu seeti la bu ñu demee toog ak yow wax la fi situation bi toll bu ñu la ko waxee ba noppi ñun suñu caan wàcc na ñun ay imam lañ dañuy jiite askan fi kilifa nekk am nañ pas-pasu toog ak yow boo jëlee sa responsabilité ah loolu sa digganteeg sa borom la boo jëlul sa responsabilité sa digganteeg sa borom la ndax nag ak lu la waay mën a wax ku mu ci ñun ab sàmm nga ñun ñi ay sàmm lañ ñun ñi taxaw ci kanam mbooloo yi di leen kilifa diine yi ay sàmm lañ kenn ku ci nekk nag kem la ngay sàmm na mu toll na la sa responsabilité di toll kon ñoom ñooñu ñu ëpp responsabilité ci askan wi parce que ñoom la seen kàddu gën a sori suñu kàddu léegi nag lii di xew nii kenn ku ci nekk mbir la moo xam ne da nga koy layoo jeg sa borom ëllëg yomal xeer loolu nag koo ko xam te nekk ci kanam kilifa di ko tëjee di ko tëjee ka te xam ne lii xew ci réew mi lépp responsable la ci boo ëllëgee yàlla da koy laaj dëgg dëgg bu fekkee ne yéen nga kilifa ga jàmm war nga koo dimbale ci moom taxawaayam dimbal mat ci aw askanam. al imaam su ko defee nag. Mhm. Euh, ma maa maa ngi ci ñëw. su defee nag kon. Mhm. ñun li ñu man mooy loolu léegi nag euh, li nga wax sànq ne euh, mhm. kilifa yi ku wax ñu saaga la loolu dégg nañ ko ba tàyyi ci këri diine yi. man sax danaa faral di wax ne est-ce que ñun li ñuy tuddee saaga loolu aw saaga la. parce que xëy na bu njëkk dañoo miinul woon kilifa diine wax ba noppi say bi am gis-gis ci wax ci ci wax ji mm-hmm. en général nag loolu la ñuy tuddee saaga waaye fi ne ñun ba tey nag mm-hmm. dëgg-dëgg jàpp naa ne société bi naam jikko yi deltu na ginnaaw tuuti mm-hmm. waaye nag yëgg ko ci kilifa diine mën a wax ba noppi ba noppi ñu di ko dëgg bu fekkee ne am na it wax dëgg yàlla ay quelques rares personnes lañ yoo xam ne wax dëgg ñoom loolu ñuy def ñoom ñoom la ñoom ñoom la engagé. dëgg la waaye taalibe yi moom wax dëgg yàlla eggaguñ nag fu kilifa di wax ñu di ko saaga léegi nag benn problème dafa am. maanaam li li nit ki di wax ba noppi ne bu ma ko waxee xam naa ne danañ ma saaga. léegi lim li muy wax loola lañ war a jàngat lu mu doon. xam nga problème yi lan la. mooy askan wii. di askanu Sénégal dañuy askan wu sonn dañuy askan wu bari ay jafe-jafe te aajowoo ku leen taxaw taxawu woo ku leen dimbale. aajowoo yi képp ku leen ëpp kàddu nga di leen waxal di leen jooytu seen i naqar ak seen i jàmbat ak seen i coona mm-hmm. askan bi daf ko aajowoo léegi nag ñun suñu réalité askan mooy en général ñun suñuy kilifa diine danañu leen privilégié euh, c'est-à-dire dimbale leen taxawu leen ba seen adduna lu ci bari dutuñu ko yëg boo tawatee dañu lay daal di jëlal vol dagala billet nga daal di dem faju ji bitim réew li ngay soxlawoo ci sa àdduna dara du manqué yàgg sa njaboot da nga am dëkkuwaay yu baax te moment boobu ñu di la taxawu ca loola am na ci ci saw askan ñoo xam ne saytaalu bi la ñu ngi ci biir mbënd bu nawet jotee ci mbënd mi la nekk moment bi ñu lay daggal daggal billet jëla la vol nga dem biti réew faju ji tawat ji nga yore yow kilifa am na sa taalibe boo xam ne même tawat jooju la yor mënta faju moom tawatam jooju da koy rey parce que amul moyen nu faju da koy day weyaleeg moom ba faatu jot mu faatu cest yi nga yi ñu am yëpp taalibe yi amuñ ko kon lii souffrance ci réew mi taalibe yi koy dund léegi nag yow kilifa gi bu ñu lay séentu ci li liy metti ci ñoom nga jàmbatal leen ko ci état ba noppi nga ñëw ne leen lépp baax na bu boobaa ñoom dañuy wëlbatu ne sa lépp baax na waaye ñun suñ dara baaxagul xëy na loolu lañu loolu laa jàpp ne moom la ñuy tudd ay saaga waaw parce que nag loolu yenoon na maanaam sama lépp baax na moo gën a yomb réew mi lépp a ngi dox waaw sa sa lépp di dox moom ak euh, lépp askan wi di dox loolu bokkut askan wi nag dañuy toog ñoom di souffrir nekk ci ay souffrance yow nga ñëw sa lépp baax nga ne as nga ne réew mi lépp baax na lépp jaar na yoon su ko defee rek sa njaboot googu ci suuf it ne ah, sa lépp jaar na jaar na yoon waaye ñun suñ dara jaaragul yoon xëy na kon loolu la ñuy tudd ay saaga ndax dañ ko minutoon bu njëkk waaye nag ñu bàyyi ci xel rek ne kilifa diine yi ñoom ñoo war a taxawu askan bi ñoo leen war a dimbale injustice yi état di teg ci ñoom ñoom ñoo ci war a taxaw ñoo ci war a wax problème yiy dund yi askan wi di dund ñoom ñoo ko war a wax ñun imam yi nga xam ne léeg-léeg sax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ne ay politiciens ngeen parce que en général comme ñun ay euh, ñu ëpp ci ñun ay jeunes lañ dañu dëppook jamono di xam li xew ci internet bi di di gëstu toujours suñuy xutba dañ koy dëppale xew-xewi jamono su ko defee toujours dañuy yëg ci suñuy xotab ni ñun ñi ngi jàmbatal askan wi seeni coono pourtant ñun ñii di ko wax kilifa diine yi la seeni kàddu gën a sori ñoom la seeni kàddu gën a kawe lii ñuy wax ci kaw manaa biir yi di ko jàmbatal askan wi ci ñoom la gënoon a yàlla ci ñoom la gënoon a yaay léegi nag buñ ko defut askan wi di jàmbat ba noppi ñoom ñu ne lépp baax na ah boo liggéey rek askan wi dañ génn lépp baaxut. bu la yeneen xëy yow nga ne sa lépp baax na ndax sa lépp ngi dox waaye ñun suñu dara doxul. dara dox mm-hmm. macha allah imaam mu mel ni leer na kon bokk <coughs> kilifa yi ñoom xëy na ñoom ñoo war a wax askan wi xëy na souffrance yi nga xam ne moom lañuy ñuy dund. Mm-hmm. waaye imaam comme niñ ko waxee woon sànq rek ajjuma bi passé fi nga xam ni moom mooy Mbàkke mm-hmm. euh, ñi nga xam ne ñooy ñooñu Pastef ñu ngi fi bëggoon organiser benn meeting. waaye mën nañ wax ni dañoo dem ba si waaja a cappaandaw ga kat préfet bi maanaam tere ni moom kat meeting bi kat waratu am mm-hmm. léegi nag ah ñoom ñu ni kat ñoom dañ koy organiser ndax xëy na fa ko préfet bi teg daanaka xëy na nekkul loo xam ne ni lu yoon war a mën a nangu la mm-hmm. ndax pendant ndax ba muy tere meetingu côté bi ma ngay ñu ngay autorisé maanaam ñeneen si seen yeneen activité politique yi ñuy def mu mel ni daal dafa mel ni ñoom dañoo sentir ni mhm. maanaam réew mi tëddeewuñu njaaxaanaay mhm. moo xam si ñi nekk au pouvoir ak ñi nekk opposition dafa mel ni dafa am ku ñu kumba am ndey ak kumba amul ndey mhm. waaye terewul tamit imaam mu mel ni ajjuma jooju dëkk bi xawoon na tàng maanaam mu amoon ay jàpp jàmmaarloo ay taal ak yu mel noonu imaam yow naka ngay jàngate xew-xew yooyu fi amoon ci ji waaw kay xew-xew bi day ñëpp jaaxal na leen ndax dëgg-dëgg Touba day benn ville boo xam ne dañ koy tuddee la ville sainte muy béréb boo xam ne ñun ci suñu fàttaliku ba nëgëni sax toujours da ngay def da ngay gis bu waaye bu ñu tollee ci ay campagne électorale parce que ñun suñu fàttaliku mu ngi tàmbale ci xilaafat Cheikh Abdoul Ahad mm-hmm. boobu Abdou Diouf nekk fi mm-hmm. toujours bu campagne électorale accès da ngay gis kilifa yi def ay déclaration mais yëngu-yëngu yu politique yi ku ko mënta ñàkk def da nga génn xormay dëkk bi nga dem defe ko foofa. boo gisee en général sax toujours suñu politiciens yi bu ñu dee def kii toujours mbàkke lañ koy defee wala yu wala yu jege dëkk bi waaye du doon ci biir dëkk bi. kon dëkk bi dañ ko mos di waggar ci lu mel noonu dañ koo mos di sàmm waaye nag ba tey manifestation bi woote wuñ ko woon ci biir Touba ñu ngi ko woote woon ci biir Mbàkke waaye kon ne xam ne ne Mbàkke ak Touba daanaka day benn béréb waaw day benn béréb daanaka dootul ñaari dëkk benn dëkk la lii xew ci ci biir Mbàkke day reflété ci biir Touba lii xew ci biir Touba day reflété day reflété ci biir Mbàkke mu mel ci ni ko waxee mm-hmm. euh, ay leader politique yu bokk ci opposition bi ñoo bëggoon a def seen meeting defe ko ci biir Mbàkke mm-hmm. ñu dem bañ ne suba la même pas 24 heures ci la leen préfet jox réponse ci la leen meeting boobu ngeen bëggoon a def mënut leen ko def xëy na ñoom ñu gis ne injustice la parce que la préfet di recommandé 48 heures avant la leen ko waroon a jox su ko defee bu fekkee ne lu ñu war a corriger la ñu ñu ñu corriger ko parce que li ma dégg donte ne xëy na mën na maa bañ a leer lool ci bu fekkee ne ay affaire signature la wala boog seeni numéro nekku ci woon wala nangam ak dégg naa ci ay yu bari daal mm-hmm. ala ku daan donte ne man liiruma arrêté mm-hmm. waaye dégg naa ci version yu bari bu fekkee yooyu la nag ay numéro yi nekku ci woon ak wala boog euh, nangami signature ci waroon nekk signature yi ak lu mën a doon bu fekkee ne euh, loolu rek la woon. dëgg-dëgg avant 48 heures mënoon nañ leen woo ne leen lii ngeen ngeen war a corriger ñu dem corriger ko indiwaat ko su ko defee ñu mën koo ñu mën koo valider jàpp naa ne lu mën a nekk la léegi nag. Bamba réew mi dañuy wax ne réew ci république la ñu nekk nekkuñ ci royaume. D'accord buñ nee royaume. mooy kilifa gi kenn lay doon koo xam ne xalaatamay dox xalaat bu dul bosam doxut bu ñu nekkee ci république nag nit ñi dañu am liberté te seen liberté yooyu ñu am nag dañ ko war a exercer normalement léegi nag opposition nga nekk wërta tax ñuy teg injustice ci yow ba bëggoo boo bëggee meeting ñu ne la sañoo koo def ki bokk ci pouvoir bi bu bëggee meeting ñu ne ko yow ci pouvoir nga bokk sañ nga meeting loolu amul fen ni pouvoir bi amee ay droit fu ñu bëgg a baas baas fu ñu bëgg a meeting meeting noonu la opposition bi amee ay ñu bëgg a meeting meeting meeting bu ñu leen koy tere dafa fekk lañ leen koy tere cause bi war a doon cause bu noble boo xam ne bu ñu leen ko waxee ñoom opposition bi ñoo xam ne ah normalement lii moom jar na foofu meeting léegi nag bu fekkee ne ñoom dañoo gis ne dañoo teg injustice ci seen kaw li leen teg jaaruwut ah normalement dañoo war a taxaw nag lànk injustice boobu ñu bëgg a teg seen kaw loolu kon xëy na moo tax ñu fipp ne muy neex ak muy naqari métier bi danañ koy def loolu nag mm-hmm. man du ma wax ne du ko encouragé xam nga tax du ma mm-hmm. mooy ñii na ci pouvoir bi tey barki démb bi ñuy opposé injustice bu leen pouvoir bëggoon a teg à l'époque ca jamono boobee jamono Abdoulaye Wade dañ ko doon lànk te vidéo yaa ngi fi ñu leen koy tegal ñu di ko dégg mm-hmm. injustice bu ñu leen bëggoon teg rek ci jamono Abdoulaye Wade ñoom pouvoir bii fi nekk tey à l'actuel mhm. dañ ko doon lànk mais kon tey jii bu ñu demee ba excès sa pouvoir bi bëgg jël injustice boobu ñu leen doon teg démb ñu bëgg koo teg seen adversaire politique ñoom it am nañ droit lànk ko ci république la ñu nekk dañ bay caaxaan yi léegi nag euh, li ci xaw metti ci xol mooy yàqu-yàqu yi nga xam ne jot naa am euh, loolu it dama ci yee gone yi ñu xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ ci biir réew mi lañ nekk te gis nga alal yi ñu yàq suñu alali bopp la ab jullit nag du yàq alali moroomam wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ab jullit du yàq alali moroomam parce que buñ ne ay total ñu ne euh, euh, cinq cent wala au cent naam xëy na dañuy wax ne ay société tubaab la tubaab la mm-hmm. waaye nag li ñu war a bàyyi xel ne mooy ay sénégalais ñoo ciy liggéey c'est-à-dire station yi ñu laal ñi ko moom ay ay ay doomi dëkk bi lañ dëkk ci dëkk bi amaana di ay murit nga bokkak ñoom dëkk bokk ñoom sëriñ bokk ak ñoom lu baree bari dëgg-dëgg kon kooka mer waru laa yóbbu ci nga di ko yàqal alalam yàq moom kenn waru ko cautionné dégg naa nag euh, yenn ci ay kilifa ay jeune marabu yu ci wax diggante démb ak euh, tey coow li bari na ci lool Euh, dama bëggoon daal nit ñi ñu xam ne par lu baaxul doomu aadama dafa war waxtu bu nekk muy seet li nga xam ne moo nekk juste vrai nga di ko wax xam nga man ñaawlu naa lool alal yi ñu yàq ci biir dëkk bi ñu di fi taal sawara ñu ne biir tubaay ñu ngi fay manifester man bu ma sañoon doo amee noona bu ma sañoon dañuy may opposition bi ñu dem Mbàkke def seenu meeting def lañu war a def lépp ñëpp delluwaat ci jàmm au lieu lii am ci biir dëkk bi bañu fi am man ci loolu laa ànd waaye nag euh, yenn euh, jeune mara marabout yi wax ne dañuy ñaawlu loolu dañ caa waroon a boole waale ay force de l'ordre yu jàkkaarloog leader politique bu nekk ci biir otom nga visé para birisam tiire ca bal xaw ma gaz lacrymogène la xaw ma bal bal réel bal réel mm-hmm. mais kenn nattable wut ne tiire nañ bal ci ci ci pare pourtant loolu li ci mënoon a juddoo moo ëpp alal ju yàqu parce que pare bi bu bal bi rëcc rëccoon dem ci biir oto ba kañ jàpp ne néew ma moom lañ doon visé de waaye kañ jàpp ne moom lañ visé mm-hmm. tey jii bal ba daloon ci kawam heure bii fii ñu toog nii jàpp nañ ne réew mi ci situation lay nekk heure bi tey réew mi ci fitna lay nekk loolu it jàpp naa ne moo ëpp doole alal ju njàqu kon buñ dee wax rek nañ waxal yàlla euh, alal moom ab jullit waru ko yàq te it loola ñu ngi ci yee ndaw ñi bu baax ñu xam ne alal yii di yàqu nii seeni alali morom la seeni alali frère la seeni alali sœur la te nit warut a yàq alali warut a yàq waaye nag lépp responsabilité bi. Mm-hmm. wala boog responsable mooy préfet bi nga xam ne moo ay meeting bi. Mm-hmm. ak ay supérieurs yi nga xam ne xëy na ci ñoom lay jëriñ lay mm-hmm. jëriñ digal. ndax lépp nag dëgg-dëgg buñ ko ayewutoon ay pneu du fi tàkk sawara du tàkk Tuuba duñ fi yàq alal donte ne yàq alal moom kenn du ko questionné. waaye nag lépp ñoom ñoo responsable. parce que nag mënuñoo nekk ci dëkk bi di exercer seeni droit ñoom ñi féete ci pouvoir bi. boo opposition bi jógee ba bëgg a exercer seen seen droit ñu ne ñu ne du ñu ko loolu kenn du ko nangu. léegi ndax maanaam ndaw yi loolu yàq-yàq yooyu ñuy def imam ndax maanaam warul am maanaam luñ ko mën a tekkee ndax xëy na bëgguñu am lu ñu wane ndax wala boog dañuy jóg yàq pour yàq rek wala ndax dafa am lu leen naqari ba tax xëy na ñuy manifester woo yàq bi. Hmm. waaw xam nga kenn nattablewul ne. Hmm. sawara si ñuy taal ak xeer yi ñuy sànnanteeg policiers yi. Hmm. am lu leen naqari moo tax parce que dañoo am kàddu ci réew mi bëgg a wax seen soxla ñu ne leen du ngeen ko fi waxe xam nañ ne loolu moo leen naqari waaye nag euh, damaa jàpp ne naqar wi amoon na ci yeneen anam yuñ ko mënoon a manifesté yu bokkul ak fekk alalu sa sa mboroomu sénégalais ni yow nga ñëw yàqal ko xam nga li nga yàqal du tubaab bu xonq ko moom te sax même bu même man bu ko tubaab bu xonq moomoon sax ñun ay nit yi diine lañ diine lañ jàng mm-hmm. diine moom ku xam na ne dafay sorenteeg yàq alal alal alalu lu nit loolu moom diine du ko cautionné benn yoon même ki nga bokkalul diine sax diine mayu la nga yàqal ko sal bu fekkoon ne ay tubaab yi xonq cuy ñoo nekk fii di gere station yi di gérer Auchan yooyu nga xam ne du ay duñ sax ay sénégalais man jàpp naa ne bu manifestation amee rek wërta tax parce que ay tubaab la ñu yàq seen alal yooyu ab jullit moom du yàq alal moroom rawatina muy alal joo xam ne ay sénégalais ko moom parce que nag ah kay station Total bi xëy na ki muy dem ki muy dem di jëflanteel kooku ab france la waaye moom moo jël alalam dem dugg ci association bi dugg ci société bi associé associé ci waaye moom moomoo alalam léegi li nga yàq nii du alalu du alalu France nga yàq France nga yàq de sa alalu frère Sénégal nga yàq loolu nag jàpp naa ne kenn ku nekk da ko da ko war a moytu naqar li ñu am kenn ku ci nekk mën nga façon boo xam ne man mën nga cee manifester saw naqar parce que it dafa bari façon yu ñu koy yu koy yu koy yu ñu koy manifester ndax taxaw googu ñu taxaw ci mbedd yi taal ay pneu taal ay ñax yuuxaloo def ay bruit loolu rek façon wane saw naqar la euh, ak yeneen yu ni mel mën na nekk mën na nekk mars mën na nekk anam gu nekk waaye ba mu des rek yàq alal jullit loolu moom ab jullit waru ko def ma ngeen naan al ba tey ci li nga xam ne ni moom moo fi xewoon àjjuma ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mooy leaderu Pastef moom kat laata muy ñëw dafa ne xëy na dana ñëw si jumaa ji julli bu fu jógee ba pare xëy na dem Mbàkke gise ki nga xam ne ni moom mooy xalif euh, Baye Fall yi léegi soog a dem ci marché bi mm. ay kilifa yu bari yoo xam ne ñoom dañoo jóg nee nañ en tout dal nañ bu baax a baax ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko léegi nii yaa ngi koy tudd yaa ngi si tudd ay jeune marabout mm-hmm. du ñàkk mën nañ leen tudd ku si mel ni wax euh, sëñ Mamor Mbacke RFM mm-hmm. ak ki nga xam ni moom mooy docteur Khadim Boussa ak ki nga xam ne sax moom mooy sëñ Modou Kara maanaam en tout cas ñu bari daal jug nañ daal waaye ñoom biñ jugee mm-hmm. dañoo dal ci kaw Ousmane Sonko ndax nee nañ moom kat amul orma ci dëkk bi respecté wul sëñ Mountakha waaye itam maanaam fitna bi nga xam ne nii maanaam Touba mosu ko xam maanaam lépp daal ci loxoom la la xewe hmm. imaam yow lan mooy sa xalaat ci loolu waaw xam nga nag euh, réew mi li fi am bamba hmm. mooy mooy parparloo hmm. c'est-à-dire yow koo faral lu mu def baax na koo faralu lu mu def déli la loolu nag baaxut ab jullit warut a doxe noonu ab citoyen warut a doxe noonu nit dafa war a équilibre gis nga mbooloo mi daje ci entour li entouré jumaa ji du ci Ousmane Sonko la mos président Macky Sall bii nga xam ne moo jiite réew mi tey. Mhm. ak président Abdoulaye Wade bi ko jiite woon démb. ñun fekke nañ ko ba ci Abdou Diouf dafi doon ñëw di julli si àjjuma gis nga toujours bu ñu doon julli si àjjuma xalif bi day wax ne c'est-à-dire Cheikh Abdoul Ahad bi mu fi nekk Abdou Diouf daana fi ñëw di fi jullee àjjuma mhm. avant muy ñëw xalif bi day def déclaration. ne ab Diouf daf fee ñëw daf war a ñëw nañ ko ko tertul ca sorti dëkk ba ba ci jumaa ji lépp mbooloo lay doon dañ koy gunge di ko tàcc di ko tàcc ba mu dugg biir kër eh, kër Cheikhul Khadim bi résidence Cheikhul Khadim ba mu dugg fa bu génnee buy dugg ci jumaa ji nit ñëpp dañuy taxaw di ko tàcc loolu naka jekk dafay mos di nit ñi ñooy wane seen sympathisé ci ci ci ci ci ci leader politique bi naka jekk dafa mos di am Ablaye wadd bi mu fi nekk Serigne Saliou ba Moussa di ñëw Touba en général lu ci bari alxames lay ñëw day fanaan xëy julli àjjuma balay ñëw Serigne Saliou daf daa def déclaration ne sama sama taalibe boobu ñu wax Abdoulaye Wade moom sax loola daa jëfandikoo sama taalibe boobu ñuy wax ñuy wax Abdoulaye Wade dafay war a ñëw suba ci alxames ji fi la julli ma bëgg yéen ñëpp ngeen tertu ma ko li wër jumaa ji lépp day fees del mu wàcc ñi di ko tàccu ak naan ko soppi soppi soppi loolu ci suñ kanam la ñu fekkee woon ko mm. président Macky Sall bii bu fiy ñëw dañuy wax ne Macky Sall day ñëw Touba day ñëw di jullee si fii ci jumaa ji bu ñëwee fi foofu jumaa li wër jumaa ji lépp embouteillage lay doon waaw ah, mais Ousmane Sonko bu amee ay soppe ci dëkk bi am ay militant ci dëkk bi am ay ay ay sympathisant ci dëkk bi mais bu ñëwee ñu am cofeel ci moom danañ ko war ne ko ñun sopp nañ la problème bi loolu la rek mais ci jëmmi boppam ji moom kenn gisul genn ñàkk war ma gum def koo xam ne bi nga ñëwee li xormu Touba laaj lépp def nga ko ak si ànd ko bi yar ñi nga àndal ñuy ay garde corps fi leen yem loo la yem bi ngay dugg sax ci biir barrière bi di julli dañu leen a téye ci biti dugguñ ci biir nga dugg julli bi nga noppee siyaare sëriñ bi siyaare kilifa yi nga war a siyaare toog ci biir jumaa ji xaar ba sëñ Muntaxa dugg ci barabu Cheikhul Khadim bi ba génn dem bam mu ne sëñ Muntaxa dem door a génn moom dugg ci biir barabu Cheikhul Khadim door a génn bi mu génnee nag fekk na mbooloo mi di ko xaar mbooloo mi moo leen fa indi woon comme moo leen fa indi nag danañ ko xaar mm-hmm. bu ñëwee danañ ànd ak moom ba ñu ñu bëgg a moom ci boppam moo yëkkati kàddu boppam ne nañ wax jërëjëf sëriñ jërëjëf sëriñ Tuubaa nit ñi di ànd ak moom di ko wax ba génn jumaa waaye nag Cheikh Ahmad Tidiane Sy mm-hmm. daf daa wax ne mm-hmm. nit bu la bañee boo doon sangu ci biir géej gi sax mu ne yaa mooy fëddal <laughs> ku ne xam ne ne géej amut cher Mm-hmm. <laughs> jërëjëf macha allah jërëjëf imam mu mel ni leer na mm-hmm. ba tax na sax ñoom seen bopp sax en tout cas am na si koo xam ne moom nee na mm-hmm. xëy na yàq yi nga xam ne nii moom la ndaw yi di def dafa mel ni xëy na moom moo nekk ci ginnaaw ndax en tout cas moom si boppam mosul toog wax ni ndaw ñi kat bu leen yàq yow ndax kàddu googu yow ndax mës nga dégg Ousmane Sonko encouragé ndaw ñi ne nañ yàq wala am de imam euh, xam nga loolu moom jàpp naa ne ñi koy wax ñépp euh, c'est-à-dire dañuy politique rek xamul tax mhm. damay nettali benn anecdote dafa am benn plateau boo xam ne mos naa ko suivre booba ñu ngi ci diggante 2011 fin 2011 ah, début 2012 xale yi dañu génn fii xam nga boobu manifestation yi 2011 daanaka lépp ay manifestation la woon xale yi dañu génn fii place Obélisque yàq fa yàq yu bari taal taal ndakaaru bam bam bam bam tàkk jëppit coow li bari ay nit faatu ay nit amee ci gaañu gaañu alal yu bari yàqu ci am na benn plateau boo xam ne président Macky Sall bii ma nga fa woon euh, euh, Moustapha Niass ma fa woon ak yeneen leader politique pourtant bi leen bi laajee ne lii xale yi di def est-ce que ñoom xam nañ ko alal yi ñuy yàq taal yi ñuy taal ñoom leader politique yooyee tey ñoo ñoo dañoo encouragé li xale yi doon def dañ ne xale yi li ñuy def xam xam nañ ko parce que seen souveraineté la ñuy xeex seen liberté la ñuy xeex xale yi dufuñ xale yu mature lañ dañoo bëgg bëggut ku leen ku leen nag moo tax taxawaay bi ñu amee ñu am ñu amee ko ñoom ñoo doon wax loolu démb. ñoo doon wax loolu démb. sëñ te taxaw ne xale yi yàq leen loolu sëñ ko sëñ te taxaw ne xale yi yàq leen. waaye li ñu war a wax mooy li dox diggante nit ki ak muy manifester loolu lan la lan moo dox diggante nit ki ak muy def manifester bu fekkee ne nit ku bëgg a def meeting la day wut ci place bu mu koy defee boo xam ne du yàqal kenn du gàllankoor dem bi ak dikk bi ay militant ak sympathisant ñooy ñëw bu ñu ñëwee mu taxaw waxtaan ak ñoom kenn ku ci nekk dellu sa kër Bamba est-ce que mus nga fee gis benn manifestation boo xam ne dañ ko autorisé mu pare ñu ne am na fa ay nit ñu fa ami gaañu gaañu wala am na nit ko fa faatu doo ko dégg mukk bi ci mujj nga xam ne moom laa la jox exemple mooy bii waa Pastef fii def euh, Kër Massar nga xam ne dem nañ bay wax ci au niveau international di wax ne euh, ci c'est-à-dire ci seeni tubaab bi laa bëgg a wax rek di wax ne euh, c'est-à-dire meeting bu mel nii hmm. loolu moom mu ngi door a am ci histoire Sénégal histoire politique bu Sénégal ndax li fa dajee ci mbooloo pourtant ñoom bi ñu paree ci seen meeting ànd ak ne coupé nañ courant ba coupé nañ courant bi ci biir ci biir ci biir meeting bi mhm. violence amul dañu mujj ñoom xale yi ñoo doon taal seen i téléphone pour pour pour pour ah, leeral leeral béréb bi mhm. bi ñu paree fi ñu doon defee fi ñu doon defee meeting bi mbuus yeeg kayit yeeg xotti butéel yeeg yëpp dañu ko for aménagé ko ba mu set wecc wecc wecc ñu door dem ñibbi ana luñ bëgg a wane foofu patriotisme. patriotisme waaw lan moo dox digganteeg bu opposition bi bëggee bëggee de seen meeting wala ñu def seen marche ñu bàyyi la ñu def ko. au lieu ñu leen ko tere bu ñu leen ko tere ñu ne sax ñu leen ñu koo tere léegi dañuy génn mu jur ab taal jur ab yàq ñii abi blessé ñu jàpp ni yow ñu jàpp ñi yóbbu dañ leen aati te lépp li ko waral mooy danga ngaa bëgg a meeting ñu ne doo fi doo tey tey bu meeting jotee ñu bàyyi leen ñu meeting dañ leen war bàyyi parce que nag yow pouvoir bi yow mi jiite amul benn place booy soxla ci réew mi ni dama bëgg a def benn rassemblement préfet place boobu na la doog fi defe mos nga ko gis du fi mukk amul benn régime bu fi mos a nekk boo xam ne mos ngaa xëy bëgg a def benn manifestation préfet bi na la doog fi defe mais toujours ñi nga dégg ñu di leen tere seen manifestation mooy opposition bi pourtant ñi jiite ëpp ñu leen ay droit ëpp ñu leen ay droit ci biir réew li ñu war a wax mooy lii metti xale yi ba tax ñuy yàq ci loolu la ñu war a wax au ñuy wax naan yàq nañ sa yàq nañ nag yàq nag nañu équilibre te bàyyi par parlo bi d'accord ma ci yàq mhm. kenn du ko questionné muy Ousmane Sonko muy keneen kenn sëñ te taxaw ne bu ngeen meree yàq leen mais njaboot nag boo leen amee day am fu muy toll mënootu leen a mënootu leen a euh, encadré mënoo mënoo leen a euh, superviser am na fu jamono di toll foo xam ne kenn ku ci nekk ay sentiment ngay doxee ay yëg-yëg ngay doxee yëg-yëg yooyu nag mën naa jur jëye waaye loolu moom kenn mënu ko cautionné kon nag li ñu war a wax mooy opposition bi bu ñu bëggatee def seeni manifestation nañ leen bay ñu def ko parce que pouvoir bi ëppuñ leen ay droit ci biir réew bi ñun ñëpp ay Sénégal ba noppi encadré leen parce que yow yaa ngi ak police mhm. yaa ngi yaa ngi ak euh, nee nga lépp doy na sëkk mhm. jumtuwaayu yi doy na mais bu ñu bëggee def seen manifestation jëlal police gendarmerie ñu taxaw encadré benn débordement du am ñu def seen manifestation bu ñu noppee dem ci seen kër amu fi benn manifestation bu ñu fi mos a autorisé ñu noppi ñu ne am na ko ci ami gaañu gaañu wala yàq nañ ci alal jàmbur musta am mais pourtant làmb ci football bi toujours day jeex violence yoo am ci amul làmb tasul ba tey agresseurs yi taxaw ci mbedd yi di agressé euh, jigéen ñi ah nangu seeni i nangu seen i amul benn benn yoon bu làmb di am làmb ji yàq barki démb maa ngi dégg ñuy yeesal benn euh, loi boo xam ne mi ngi woon ci CNG mhm. CNG du lutte muy heure bi mbër yi di sëgg di bëri dafay guddi ba mu ëpp mhm. bu ñu noppee nit ñi ba lu ñuy génn seeni i kër euh, ba lu ñuy génn ci stade bi di dem seen i kër diggante bi mën nañ leen ci agressé lu nekk mën na leen dal léegi nag ñu ne 19 bu jotee ñoom ku sëgg ku parewul mbër bu ci parewul dañ lay dañ lay alamaan nit mais ñii di wax nii duñu wax loolu fi mu duñ ko wax comme bi fépp la am du ci politique bi rek effectivement mu mel ni dafa mbir mi dafa nekk par parloo kat imaam buñ ko seetloo ndax lii nga xam ne moom mooy opposition bi saa yu ñu bëggee organiser ñu tere leen mm-hmm. waaye tamit pouvoir bi saa yu ñu bëggee organiser ñoom daanaka am na ñuy wax sax du du ñu yëgle mm-hmm. en tout cas démb ñu ngi leer ci information ki nga xam ne mooy amado Ba bokk ci Pastef ñu ne ki nga xam ne moom mooy Doudou Ka moom organiser na meeting Ziguinchor. te demoon déposé demandé wul sax autorisation. te terewul sax maanaam dañ ko sax jox ay policiers. maanaam pour léegi maanaam pour pour aar xëy na li ñuy wax mooy kaaraangeem. fii li fi am mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey. ak kumba amul ndey loolu mooy wax ji. kon imam mu mel ni mbir mi doy na waar Sénégal en tout cas réew mi fi nga xam ne ni toll na fi euh, lu ñëpp jara xëy na ñaan jàmm sax fi hmm. imam ñu laaj la rek léegi ginnaaw taxawaay yi nga xam ne nii moom moo fi jot a xew hmm. ak yi nga xam ne ni moom mooy xewaat ndax ñi nga xam ne moom mooy parti Pastef kat ñoom kat nee nañ duñu bàyyi hmm. te Ousmane Sonko tamit indi yóbbu nañ ko procès nee nañ chambre criminelle xëy na nag jàppaguñu date bi imaam yan taxawaay la léegi ñëpp war a am ci situation bi ndax kat Sénégal xëy na bañ a dundaat li ñu dundoon jamonoy 2011. Euh, ok situation bi day mooy kenn ku ci nekk jël say responsabilité xam nga situation bi ci réew mi moom ñaar rek a ko waral muy problème Ousmane Sonko ak deuxième mandat Macky Sall coow li ci réew mi. lépp waaw loolu rek moo ko waral. léegi nag bu dee procès Ousmane ko xëy na mbirum droit ak yu ni mel. ñun suñu xam-xam màccu ci. waaye nag bu fekkee ne ay analyste lañ di analyser lii xew ci réew mi yor sunuy nopp di diglu it wax dëgg yàlla dëgg-dëgg li ñuy diglu li ñuy dégg bu ñu noppee nag danañ ko mën a àtte ci suñuy xel. xam nga dossier bi ñun ñii ci biir réew mi kenn ci ñun. kuy nattable ne dossier politique la c'est-à-dire xëy na ñi nga xam ne dañu nekk ci biir pouvoir bi te am ay intérêt ci liquider seen adversaire politique ñoo ñoom bu leen neexee ñu ne du dossier politique waaye askan wii moom nga xam ne ay sénégalais am dara ñoom kenn ci ñoom kuy nattable ne du dossier politique amu ci parce que nag nit du nax boppam xale bu jigéen bii nga xam ne li xew lépp ci moom la xewee waxtaan woo xam ne def na ko nit ki mu doon waxtaan enregistré ko te yëgu ko la mu wax ak moom nag jàpp naa ne bu yëgoon ne ñu ngi koy enregistré du ko wax bu xamoon sax ne sëñ bi mën na koo enregistré yi jàpp naa ne du ko wax kon moom dafa leeralal boppam ci ne lii diw ak diw ak diw ñoo ma ci dugal ñoo ma dig lii ñoo ma dig lii ñoo ma dig laa loolu senegal yëpp ko déggandoo cest à ci loo xam ne nag sañuñ cee dugg sax ñun waaye nag euh, fee yi nga xam ne ay fee nit ñëpp gis ko mën na sa cee waxtaan c'est-à-dire tey ji docteur bi nga xam ne moom moo njëkk moo moo njëkk gis xale bu jigéen bi moom ñëw na toog ci plateau waxtaan ak askan wi wax injustice bi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kawam di mbëkk ay otoom ñëw sax ba biir këram bëgg koo agressé muy déposé ay plainte plainte yooyu du am benn suite loolu yaakaar naa dégg nañ ko ci làmmiñu boppam wax na ci làmmiñu boppam ne ñëw nañ ci biir bureau indil ko maritu xaalis pour lan sensé loo ko version waaw mais dama ne te ñi ko koy def loo di ay politiciens yoo xam ne ñu ngi bokk ci état bi xam nga lii may wax nii nag du du samay wax du lu ma docteur bi moo tax waxal ko boppam te loolu Sénégalais yëpp ko dégg waaye ñoom léegi bu fekkee ne du dossier politique seen yoon nekku ci. Mhm. laata lu tax ñuy dem di di di jox xaalis docteur bi ak di ko di ko di ko sensé le verso. ah léegi nag li ci des moom mbiru Sénégalais yi bu fekkee ne ñoom dañoo am seen leader politique mhm. boo xam ne jàpp nañ ne état da koo bëgg a jaay doole. Mhm. pour écraser ko liquider ko ba du mën a présenter wu ci euh, prochaine élection ah loola moom diggante seen seen diggante askan wi la. loola moom seen diggante askan wi la su ko defee nag ñun liñ ci mën a wax rek mooy dëgg-dëgg ko am kàddu nga yëkkate ci sa kàddu te ñu wax dëgg te dëgg gi it ñu bañ koo raay raayal ku nekkul ci dëgg ñu ne la nekkul ci dëgg ku ne ci dëgg it ñu maintenir la ci la nga nekk muy benn bi ci des mooy li ñuy tuddi troisième mandat euh, gis nga képp kuy wax tey wax dëgg li nga war a wax président Macky sal mooy problème mu troisième mandat moom fukki xelam ak benn warula xalaat muy jur coow ci biir ci biir réew parce que nit ku nekk nit nga gor su nekk as gor nga dafa am nag ñaari mbooloo yu nekk ci yu ànd ak moom yoo xam ne coow lii ñuy soow naan ko amul sonn nga amul sonnoo yaay suñu euh, nu mu yaay suñu candidat amoo choix gis nga mbooloo yooyu mhm. ñoom ñoo àndoon ak moom démb doon xeex troisième mandat ci président Abdoulaye Wade bu fekkee ne nag dégg naa ñu di ko wax ne ko réew mi yaa ñu ci doy loolu nag yëpp Sénégalais yi la moom bu fekkee ne dem nañ ba jàpp ne meenum président Macky Sall kese kese moo mën a jiite réew mi ci 17 millions yi ne ci biir réew mi loolu wax dëgg yàlla yëpp Sénégalais yi président Macky Sall bi ñu koy fal faluñ ko parce que dafa dafa dàqoon jàng nit biñ koy fal faluñ ko parce que dafa gën nit ñi ab judd mbaa mu gën nit aw askan suñ boobu moo ko fal ci coobare boppam dégg wax ju baax yàlla moo ko fal mhm. léegi nag euh, bi ñu ko falee biñ koy fal dañu doon xeex troisième mandat ca président lay Wade parce que ab Abdoulaye wadd bi mu toogee en 2001 dafa voté ab référendum mhm. réformer constitution bi moom moo waxal boppam ne ñun suñu chef d'état africain yi dañu mën a yàgg ci nguur yàgg gi ñuy yàgg ci nguur nag dañuy dem a dem a dem ba askan wi di ci loro léegi nag ma jàpp na ñaari mandat doy na ci ci ci ci chef d'état bu nekk. loolu moo taxoon mu ne kon dañ ma fal ci mandat boo xam ne juróom-ñaari at danaa ko yeggale waaye bu noppi juróomi at laa ci teg bu ma ci tegee juróomi at ba noppi dootuma defaat beneen mandat xam loolu leer la. bi ñu demee ba deuxième mandat di jeex mu taxaw ne dafa bëgg defaat troisième mandat pour àggale ay sànceef. te xam nga mbir yi war a demee noonu. parce que état continuité la. da ngay tàmbali fi fa sa mandat nga yem fa bu keneen ñëwee sof. bu yeggalee ba noppi moom amoon na ay naali boppam mu commencé ay naali boppam. Hmm. loolu kay li ma la ciy jox exemple mooy président Macky Sall bii fi nekk bi mu ñëwee bari na sànc yu mu yeggale yoo xam ne sànc Abdoulaye Wade la woon. mu yeggale ko inauguré ko. Hmm. door def ay sànc boppam. Hmm. léegi comme moom mii ay sàncem fu ak fu mu mën a toll bu dee see jeexee dafa war a bàyyi. sénégalais yi tànn ki leen sopp ñu jiital ko mu doxal lim fi tàmbali woon mu eggaleel ko ko tàmbali naali boppam su ko defee euh, réew mi waaye nag sénégalais bu toog jàpp na yow réew mi ñi fi nekk ñëpp di 17 millions sénégalais yow rek yaa fi am intelligence su jiite réew mi yëpp nga nit ñi torop léegi nag ñi ànd ak moom mm-hmm. ñaar lañ seeni intérêt yi bopp rek la parce que ki nga xam ne dañ ko dénk ay post de responsabilité jox ko ay milliards askan bi mu jaawale ko poosam def ko ci poosam xam na ni bis nit mën na fee toog ëllëg loolu mën na koo jural ay problème dëgg la wala déet parce que président Macky Sall bi fi toog bi mu toogee traqué na ay plusieurs personne yoo xam ne danañ ñi alalu askan waa ngi ci seen biir tal a a am na ñu topp am na ñoo xam ne dañ leen a bàyyi ñii nekk ci moom tañ épinglé lañ ci ay dossier ñu amee alalu askan wi parce que simple ministre di tabax ay immeuble di yor ay suuf yu dul jeex yor ay compte banque yu dul jeex loolu salaire mënu koo maye nañuy wax tey wax dëgg loolu salaire mënu ko may kooka nag bu fekkee ne moom foofu la nekk moom dana xam ne moom euh, régime bi jeex arrangé wu ko parce que xam na lu ko mën lu ko lu ko ci man a fekk ëllëg kon kooko bu naa la yaay suñu candidat pour troisième mandat kooku intérêt bopp moo ko tax di wax ñeneen ñi ci des mooy ñi nga xam ne démb ñoo la doon xeex ba nga nekkee PDS ba génne la fa bëgguñ la bëgg seen intérêt lañ bëgg seen njariñal bopp lañ bëgg ànd gi ñu ànd ak yow parce que dañu am ay privilèges ci sa régime bi xam nañ ne bu sa régime daanoo seen privilèges yooyu ñu ñàkk ko te ñoom ñëpp dañuy yelwaane ñoom it dañuy langaameetu ci sa nguur ngir nga des fi seen intérêt bopp tax seen intérêt leen tax di wax boo ëllëgee boo fi jógee dañu dem dañuy dem transit transit bi wàcc kër ñooñu ñëpp nag jëru jëru réew mi di tàkk jëru it fitna di fi jutt gis nga nit dafa war a gore ci la ñuy daaneele mm-hmm. en 2011 mënuñoo taxaw fii fukki nit ak benn joxe seen bakkan gis nga ñu joxe seen bakkan ñàkk fayda taxu leen joxe seen bakkan wax naa ko ba tey ñàkk fu ñu jëm taxu leen joxe seen bakkan bañ ku leen not ak bëgg ak liberté moo taxoon ñu sacrifier seen bopp joxe seen bakkan mm-hmm. ña ci tuur seeni deret ba tey jii ñu amee ci ay laago euh, la tax ñu def ko mooy sauver seenu askan a taxoon ñu def ko dëgg-dëgg ñoom ñii nga xam ne tey ñoo jiite pouvoir bi xeex boobee tey ñoom ñoo ko jiite woon kon bu ñu demee ba tey jii wax dëgg yàlla problème yooyu ñu bëgg caa dugalaat askan wi te biñ ñëwee en 2016 ñu organiser seen référendum ne dañoo bëgg dañoo bëgg a gën a dëgëralaat constitution bi ngir bu ëllëgee kenn bañ ko mën a sappi ñaari mandat yi yi war a def mhm. ndax mille 2011 fukki nit ak benn faatu nañ te lool bëggatuma maam loolu président de la république wax na ko du benn du ñaar wax na ko ci biir réew mi ay yoon wax ko biti réew fu ne ko mhm. waruñoo toog ba tey ay nit taxaw di ko puus naan ko yaay suñu candidat boo sonne boo so boo sonut amoo choix ñun yow lañ tànn mhm. mais Abdoulaye Wade loolu ko loolu ko loolu ko ay aw nitam doon wax te teewut Sénégalais yi dañ koo sanctionné kon buñ jugalaat réew mi ci gudda nañu delloo si seen xel ci yàlla nguur gu dul nguurug yàlla day jeex nguur gi ca Senghor la jógee jaar ci ab Abdou Diouf jaar ci ab Abdoulaye Wade gis nga ni mu duggee ci loxoy président Macky Sall noonu lay génne waa dugg ci loxo jërëjëf al imam ci laaj boobu xam naa li ñuy tëjee jotaay bi rek mooy al imam xëy na jotaay bi nga xam ne moom lañ fi mujj def ak yow ci maanaam xëy na jafe-jafe yi ak tension yi nga xam ne moom mooy amoon ci réew mi ba nga joxe si woon si sa xalaat hmm. ci li nga xam ne ni xëy na mooy loolu nga waxoon nga joxe exemple nga ni kat li nga xam ne ni moom mooy agent secret yàgg na am xëy na ci biir kilifa yi. Hmm. waaye ginaaw émission boobu gis nañ ne wax dëgg yàlla am na ñu bari ñu la attaqué wax dëgg yàlla mu nekkoon lu lu lu xaw a metti lu xaw a doy waar. Hmm. ñu laaj la rek xëy na waaye itam ginnaaw loolu sax ginnaaw wax yooyu nga wax. Hmm. alhamdulilah maanaam li ñuy wax naan histoire l'histoire vous a donné raison. alhamdulilah ñu si sant suñu borom waaye itam ñu laaj la rek xëy na yow mm. attaque yooyu naka nga ko dundee woon ak tamit xëy na naka nga ko gisee. Mm, waaw ci lu gàtt rek xam naa. waaw incha allah. Euh, man nag amul woon benn problème ci man. Mm-hmm. xam naa fu ne la ma ku téléphone jógee. dëgg euh, internet bi coow li bari na. ndeysaan am na sax sama benn euh, sama benn mbokk bu ma jege lool ci mbokk. Mm-hmm. mag la ci man aussi. Mm-hmm. ñëw na fii. ne ma daal man sa doomi ndey laa. te sa gimmiñ xeeñ na moom euh, sa doomi day rek la ko war a wax léegi daal li ma bëgg mooy nga yem ci say min bar di xutba waaye daal génn ci média moom bu ko defati ndax euh, dañ dañ def mos a jàpp la nanga ma ki nanga a ko ah, euh, mais xanaa kuy tëj ku ñuy tëj la ngay tooñ man nitu diine la suñu ma tooñ waaye nag citoyen la bu ne ci biir réew mi boo xam ne dama ci am xalaat ni ko ci ñëpp amee sama xalaat bii ma am ci réew mi nag amul lenn lu ma tënk luy tee ma wax ko lenn lu ma tënk luy tee ma wax sama xalaat amut dana tegginu mhm. dana xam-xame dana leer ci sama bopp waaye nag kenn mënuma ma tee wax dëgg muy neex ñi dina xariñale waaye kenn mënu wax te dëgg te tee wax dëgg euh, loolu nag wax dëgg yàlla man dama jàpp ne gàcce la mhm. gàcce la ci réew moo xam ne république république la ba noppi ku wax dëgg maa nga war a maa nga wax li nga war a wax ñu ñëw ne la ah moytul daañu tëj parce que loolu gàcceeg régime bi la de. li ko waral mooy dañuy jàpp ay nit ñu bari di leen teg injustice di leen dugal ci kaso bi te tooñu aw nit taxaw fee tooñ tooñ gu fés ñëpp xam ne ñii dañoo tooñ. ñu bàyyi leen parce que ci pouvoir bi lañ féete loolu moo tax tey jii koy wax dëgg ci askan wi. ñu ne la yow moytu daañu la tëj man na gis nga lii may wax ni bu fekkee ne moomu yóbbu kaso ah bay boo ñu yaatal amul lu dox sama digganteeg lii xew ci sama biir réew ma di ko wax saa su ma gisee ñu teg injustice sama askan danaa taxaw wax ci amaa nag ñi ma doon attaqué mhm. naan xista bi mu nett li wér na wala xista bi mu nett li wérul bon dañoo xamul dara parce que ñoom ñëpp yi nag ay politiciens rek lañ parce que euh, xëy na dañoo far dañoo am fuñ far la ma wax arrangé wu leen ñu ne nañ ko diaboliser mais loolu man mënu maa yëngal mhm. parce que man du ma wax lu xam-xami wut man lu ma wax rek xam-xam lay doon mhm. xam nga dama boole ñetti xissa benn bi ci Serigne Touba la benn bi ci Cheikh Abdoul Ahad benn bi ci Cheikh Abdoul Khadir bi ma ko nettali ñu ne bii nga nettali ci seen seen Abdoul mais dañoo waroon a eh, weddoonoo ñett xissa yëpp mhm. parce que ñetti xissa yëpp ñoo bokk benn eh, genn kilifa gu ma ko nettali te xa ni nga may gisee nii man xissa du ma ko jëlee ci n'importe qui parce que man conférencier la. macha allah euh, imam la. Mhm. waaye ku ne xam na ne man bokkuma ak conférencier yu bari parce que man yii di daaneel nit ñi di wax nit ñi di mbëkk di mhm. xaalu nangam ak nangam ku ne xam ne loolu man du sama mbir. man sama mbir mooy ñu jàngal Seexul Xadim ci façon boo xam ne nit ñi danañ ko mën a roy buñ ko royee mel ni ñu war a mel. mais xar baax moom. di ko wax nit ñi ñuy daanu jël yow mi koy wax amal na la njariñ mhm. parce que boo noppee da nga am doo def ci sa pos waaye ñoom ñi koy ñoom ñi ngi koy waxal bu seenub jël reesee mhm. du leen amal njariñ parce que duñ gis luñ mën a roy parce que xar baax ko roy mhm. xar baax loolu mënee su ko roy li ñu mën a li ñu mën a roy mooy lu nite xar baax moom lu xay na lu xew diggante jaam bi ak boromam la mënee su ko roy moo man bu may wax ci nit bu may wax dama ciy wax loo xam ne bu ma noppee nit ki dana ko mën a jël dem jëfe ko bu ko jëfee bu mën koo jural njariñal àdduna njariñal àlaxira léegi nag moo tax xissa du ma ko jëlee ci n'importe ki man ku may jël xissa ci yow dama lay natt ba sa xam-xam mate ko njub mate ko sag maane mate ko sag ragal yàlla mate boo ma joxee ma door a jël xam nga euh, wax naa ko sax yaakaar naa kero biñ ma euh, dalalee ci wal fajiri bon euh, tey ci misaal julli géej gi fi mu ne doo dem ci benn téere sew xadim fekk ñu bind ko li may wax nii nag kenn du ko weddi moom Cheikhul Khadim bind ko ci ci loxol boppam ne julli naa ci ngay doo gis donte nag am na aw nit woo xam ne nit ñu doy ñoo xam ne bind nañ ci seen loxo ne sëriñ bi ne ko boobu te moo ne julli géej gi téeméeri version da nga ciy dégg téeméer laa wax version téeméeri version da nga ko dégg façon bu nekk nit ñi dañ ko koy nettale te xanaa du façon yëpp am te pourtant de ñii du sow ñooñu façon yëpp dañ ko jàpp nangu ko mhm. parce que la ma doon wax ci Cheikh Abdoul Ahad ñu di ko weddi dafa leen arrangé wu waaye nag euh, li ñu histoire joxe dëgg mooy barki démb leader politique bi ñuy wax Ousmane Sonko taxaw na fii ne rek ba dafa wax ba ne li may wax nii nag bu ma amoon accès toog mën koo waxtaan ak sëñ Mountakha dinaa ko def mhm. waaye fan yëpp maa ngi ko bëgg a gis mu di mu di ma loola nag ku ne xam na ne sosu ko ndax suñu ko sos mhm. nga taxaw wax ju toll noonu kilifa sëñ te taxaw publiquement di ko wax te fekk demewul noonu kon man loolu dama koo gëm entièrement dëgg la ca fan yooya kilifaam ñëw ci sëriñ Muntaxa ziyaar ko wax ak moom loo xam ne ñoom ñaar kese kese ndax fañ ko doon waxtaane kenn déggu ko ba ñu génnee kenn koo xam ne ci biir kër gi la nekk dem ci presse bi ne leen lii la sëriñ bi wax ak wax ak sëñ sëñ diw muy muy sëriñ Abdou Mbacke mi ci dara Mokhti te sëñ Abdou Mbacke la mu wax ak sa sëriñ sëriñ Muntaxa ñoom ñaaroo ko xam ndax làmmiñu sëñ Muntaxa nopp sëñ sëñ Abdou te pourtant nit ku nekk ci biir kër gi def naa ci xutba sax. nit ku nekk ci biir kër gi. woo presse bi ne leen sëñ Abdou Mbacke ñëw na fi sëñ Mountakha nee na ko neen Ousmane Sonko na bayi tooñ moo ko njabootam nga mën tooñ te sëñ Mountakha mhm. rek la ko Cheikh Abdou euh, la ko kon man lama doon wax démb. Mhm. ne kilifa yi lu ci bare bari du ñu am information. agir nag lu ci bari ay renseignement seen loolu dañuy day am ci seen biir kër. l'histoire jox na ma dëgg. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey ci suñu émission bi nga xam ne moom mooy question d'actualité ñu si doon dalal ki nga xam ne mooy al imam Serigne Mor mbay ñu bàyyi ko ba Kaolack ñëw fii Touba fekk ko ci këram waaye itam fi nga xam ne moom mooy daaram ji nga xam ne. fi la nekk di fi jàngale di fi yar tàllal ko suñu micro doon ko laaj ay xalaatam ay jàngat ak ay orientation ci lii nga xam ne moom mooy xew-xew réew mi ak jamono kon am nañ yaakaar ni lii nga xam ne ni moom lañ fi jox si ay jàngat mu nekk loo xam ne ni luy jur njëriñ kon al imam dañ lay jox nga tàggatoo ñu tëj jataay bi bu benn kon day xam naa ne ñu sant leen rek mm-hmm. sant sëñ Faaxa Siise mi nga xam ne moo nekk ci xarala gi mm-hmm. wax dëgg yàlla lii moom ak bëgg lu baax rek lay tegtale ndax it euh, Kaolack sori na lool ngeen jóge fa ba fii euh, lakk seen gasoil ànd ak seen coono yaram ak ni tey jamono ji deme ngir ñëw rek laaj ñu suñu xalaat ci doxiinu réew mi loolu wax dëgg sant nañ leen ci bu baax euh, du ñun ngeen ko defal waaye askan wi ngeen ko defal te gis nañ ko ndax it fii nu toll xëy na suñ jëmm tuuti na suñuy at néew na suñu xam-xam néew waaye nag yàlla defal nu feex ba sénégalais yëpp di ñu bàyyi xel fu ñu mën nekk ci àdduna sénégalais yu bari di ñu safoo sénégalais yu bari di ñu diglu saa soo xamee ne réew mi am na jafe-jafe it sénégalais yu bari ñu ngi taxaw di diglu lan la ci imam Mor Mbaye di wax kon bu ngeen jógee kawlax ba fii ngir taataat suñuy kàddu ci xew-xew yi nga xam ne xew na Touba barki démb dëgg-dëgg askan wi ngeen ko defal ndax ku ne xam na ni yitte woo nañ ko soxla nañ ko aajo woo nañ ko waaye nag buntu yaa ngi nii day ubbiku na eh, donte na nag dama xamul nu ma leen di def mhm. ndax yéen imaam Ali Ndaw ñu boole te kooku day kenn ci man dafa am fu mu toll ci man mhm. waaye yàlla mi bind xam na ne day eh, waxtu wu nekk sit internet yi ñu ngi loolu nag maa ngi koy jégalu ñëpp mhm. ndax latte gi ci site yi moom lay daw kàddu gi dañ ma ko jàllale bu baax latte gi latte ci site yi moom laay daw waaye bis bu set site internet dana moo dama damaa bëggoon a xam sa kër dama fee bëggoon a ñëw interview la parce que ñoom ñëpp dañuy déglu xutba yi te gis nañ ni xutba yi amal na njariñ askan wi mhm. nit ñi gis nañ ci seen bopp loolu moo tax ñoom ñëpp dañu bëgg di ñëw di defal man dafa mën ay jataay waaye bu ma ko nangu woon it euh, danaa dema dem ba daanaka du tugu jóg ci site internet yi te am na lu message yu am njariñ yoo xam ne boo ko amee da ngay fexe ba bañ a soof ci ci ci bëti nit ñi baa ngay latte ci seen i bët mhm. Euh, loola xëy na moo tax ñuy daw génn bu bari bi waaye nit ñi soxla woo nañ ko ci ñun lool kon yeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi koy soxla it nañ comprendre rek te xam ne liggéey bi moo demee noona euh, yéen nag wax dëgg yàlla imaam Ali loolu daf ñoo boole rahmatullahi alayhi te it ma nga bar sax te kóllëre it ginnaaw lay féete bu ma soñoon it wax dëgg yàlla di mottali sama kóllëre yéen moo tax léeg-léeg Euh, da ngeen soxla loo xam ne du ci am du ci am benn pexe donte ne ay téeméeri téeméeri téeméeri koy bëgg ba ci télévision yi fu ñu toll ñenn ñaa ngi woote di bëgg ci seeni palaato mhm. waaye it ñu xam ne daal comme message yenn ci message yi mi ngi jàll ci ci xutba yi mhm. te nit ñaa ngi koy jariñoo fu ñu mën a nekk loolu moo tax génn bu bari bi ñu di ko daw waaye ñu xam ne daal ñëpp ci ñoom lañ amuk yëg mhm. buñ sañoon di ñëpp la ñu waxtaanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. macha allah imaam jërëjëf. qul maa inda allahi xayrun